asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Isaaqa Mbàkke ñu ngi lay ziar ziar Adi Diop Touba sa wax ji de saay du waxi dara waxi na ko sa rek wax joo xam ne waa ki koy wax xamul mu jëm day rek di wax ndax xam naa ne moom li ngay wax moom mënoo cee indi benn firnde li ngay moom benn firnde mënoo ko cee indi. ñun gis nañ kilifa yu yor sant wi nga yor mbàkke googu dem jaamial lislaam yi jàngi diine ba xam ko bokk ci gaño gi te ba ñëwee ca dëkk ba dañ leen a génne dëkk ba euh, école bu mag bañ fa tabaxoon ak jàkka ja sax dañoo lànk nanguwuñ mu ubbi ko te dama yaakaar ni bu fekkonte ne ay nit diine ngeen yoo xam ne bëgg ngeen diine bëgg xam-xam kookee da ngeen ko wara a ndax ci gañu gi la bok di kilifa gu mag dekk ci réew mi di borom xam-xam juroom ñaar fukki atam bu rombu lit mat na mom ñepp xam ko muy katu diine di nit ku bax jang ba doon doctorat fess del ñëwaat fi ci réew mi jàngaat fi ba doon doctorat fi ci réew mi laq ay diplôme yu bare bare bare bare nga xamni titeru mi la doomu aadama yu bari di jariñu ci xam-xamam waaye ànd ak loola dangeen ngeen koo bundu ca dëkk boobee te ca gañago la bokk kon yéen bëggu leen kenn yéen ki ngeen mënta xajoo mooy nitu tawxiid yéen seen mbokki dere bi sax bëgguleen leen ñaata nit ñoo sant mbàkke bokk ci gaño gi di dund alquran ak sunna ngeen beddi leen bundu leen génne leen nangu seeni daara ci seen dëkk boobu ñaata nit ñaati nit bu dee ca dëkk ba nga dëkk xam nga li may wax kon yéen dee leen wax rek li ci des mooy nga naan gaa yi ay diine xale leen yoroog ay quelque maga ci nekk ak ay nangam ak sàngam tee ngaa ragal yàlla <laughs> tee ngaa ragal borom asamaan ak suuf moo gën ci yow de bismillah tee ngaa ragal sa boroom borom bi tabaraka wa taala ku yeyoo ñu ragal ko la boo ragalul yàlla booy wax day feeñ ci say wax bu baax wallaahi yéen sëñ bi seen kuréel gi xaw ma ci kuréel gu daq bokkaale fii ci senegaal kuréel goo xam ne am nañ fitu taxaw def ay mbooloo yu baree baree baree bari ay góor ki jigéen ay ndaw ay jeunes tollu ci seen digg doole takk seeni ndigg taxaw naan diw sàng ma moom réew mi sëñ bi googu bokkaale fan fan nga ko mas a gis nga xam ni bokkaale gi bokkaale ak lañ koy def ñoom xaw ma ko ci geneen kuréel goo xam ne bokkaaleek ak jamoo taxaw takku digg bëccëg ngay noyyi ci ngelawu yàlla li di dund ci dundub yàlla bi sa bët yi nga di ko xool gratuite sa nopp yi ngay dégg gratuite sa tànk yi nga ciy dox gratuite sa làmmiñ wi nga ciy wax gratuite sa xel mi nga ciy xalaat gratuite wér gi ma sol ay yére gratuite taxaw ci ngelawu yàlla li ci jaww ji ci dund bi ci mbedd mi ci jant bi tiim la lépp borom bi organiser ko nga taxaw naan diw sàngama moom réew mii ak diwanu moom loolu xaw ma ko ci beneen kuréel bu dul yéen kon yow yaakaar naa booy wax jëmale ci xam-xam dafa mel ni sam xel daa juutu yow Isaaqa Mbàkke bu fekkoonte ni am nga dara dara dara looy xalaat ci am xel jàpp naa ni doo ñëw fekk waa alquran ak sunna ñu tege di jéem a dund alquran ak sunna di ko leeral ngay taxaw di leen tudde ay wahabis si may wax nga naan diine xale qaala allahu taala ak qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy diiney xale qaala allahu taala ndax man nga ma indil kenn ci ñi ngay tudde ay wahabis si ku ci masa taxaw jàkkaarloog nit ñi nan leen sama maam a bind yàlla mbaa sama maama moom àdduna ak àllaaxira mbaa sama maam du nit mbaa sama maam sawara dikkal na ko léegi nee na ko ñi bañ diw sàngam di ko contre ñooña mbaa sama maam sawara dikkal na ko léegi nee na ko yoon wii nga aw boo ko wàccut man man dootuma fees te yàlla dani ma damay fees mu ne ko toogal te déglu ma ba yàgg mu naan ko boo ëllëgee ku bañ diw sàngam danaa la danaa danaa ko dugal ci yow ba nga fees ndax mas ngaa gis ñi ngay tudd ay wahabiste ku ciy wax loolu ndax mas ngaa gis ñi ngay tudd ay wahabiste ku ci taxaw ci kaw minbar di jéem a dëgëral ñàkk julli ak ñàkk woor di ci encouragé ña koy def ndax mas ngaa gis ñi ñuy wooye wahabis ku ci ngar daju fukki jabar wala juróomi jabar képp ndax mas nga koo gis ndax mas nga koo gis ñi ñuy tudde wahabis ndax mas nga cee gis ku ciy jaxasoo ak ay góor ak ay jigéen bal di jox ay jigéen loxo ñu di ko foto fii ci senegal gii nag laa wax ñi ngay tuddee wahabis waxuma yeneeni réew senegal gii ndax ñi ngay tuddee wahabis mas nga cee gis kenn kenn kenn ku ci jël alali mbooloo ndax mas nga koo gis ndax mas nga cee gis kenn koo xam ne dañ koo jiiñ suufu sénégalais yi ndax mas nga koo gis Isxaaqa Mbàkke ragalal yàlla te jéem a défendre lislaam jii تخمني با ni paa yi ngay jéem a défendre ci ak lëndëm balay yàllay bind yëgunu ko wallahi alazim nga déparé ci souf dem ci toqantu man yu dem ci lumbu deret dem ci souf mu defal la jëm mu defal la ay cër defal la ru wallahi alazim booba paa yi yëguñu ko xamuñu won sax ni da nga judd ta billahi alladhi la ilaha illa huwa bisbu la yalla ray duñ ko yek billahi bis boo duggee ci sa bàmmeel lang nga fay nekk kenn du ko yëg ku dul yàlla bàyyil xel bu baax a baax a baax ci li ngay wax xawma ci seen kuréel gii kuréel gu gën a ñàkk teggin ci Sénégal goo xam ne dañuy taxaw am fitu bàyyi jullee